mbokk yi Habib ba Salmon 2 ak Cheikh Mbaba eh Cheikh Mbaba door na ko Salmon Salmon Bébé Diallo Boy Ciss daan lay lay la la eh Boy daan Bébé Diallo Bébé Ciss daan na Bébé Diallo Boy Ciss. daan na Bébé Diène jël